SENAFTAGER lan seet si woon muy école bii formé technicien agricole yi ak le le de Ziguinchor muy école yi nga xam ne mooy former jeune, yi ci li nga xam ne nii métier agricole. Euh, euh, mission bi nag euh, lii objectif bi mooy ñu def inventaire maanaam xayma centre yëpp fukk yëg juróom-benn yi nekk Sénégal lan lañ am ci ay nit ñi fay jàngale muy ressource humaine lan lañ am ci wàllu équipement muy wàllu matériel lan lañ am ci wàllu foncier muy wàllu suuf nga xam ne doom ju góor la ci Sénégal ak lan lañ am ci wàllu patrimoine patrimoine bati maanaam nguur gi lim fi tabax nu toll lu lépp lañ bëgg a xayma suñ ko xaymaa nag ba noppi ñun dana def benn rapport jébbal ko le ministre Aly Ngouille Ndiaye euh, rap euh, mission bi tamit dafa am leneen lu ci rax ndax fa ñuy passé le ministre Aly Ngouille Ndiaye dafa def acte bu rëy muy jël 40 million ci ministère agriculture pour war a euh, permettre. ñi nga xam ne ay formateur lañ yi ne ci centre nga xam ne depuis 1960 ñoo ngi koy kaas yóbbu leen NCTP ak ak nga xam ne moo moom moo nekk Guérina pour ñu man am ay diplôme pédagogique constat bi mooy ñoo ko gisandoo euh, centre boo xam ne ay abri provisoire la centre buy formé ay ay ñoo nit ñoo xam ne dañoo war a jàngale mbay ak seen stagiaire bu Ziguinchor bi nga xam ne nii daanaka université baa ngi koy jël ñeneen ni ngi ciy jël seen wàllu ñu dem ba centre sax boo muyut mën naa euh, nekk léeboon ak lu pen loolu nag man na nag le ministre Aly Ngouille Ndiaye dana décision bu am solo constat bi daal mooy SIPA yi ma gis daal du SIPA yoo xam ni ay jeunes war nañ fee mën a dem SNAPTAGER bii ma gis it suñ ci góorgóorlu mën nañoo perte école bi